dugaar ñi fi yeewoo duñ ay yaafus te ku leen woo ci kaay leen ngeen taxaw sàmm seen moomeel doo leen ci jiitu parce que tey ji ay fàqmaan ay bandi foncier bu ñu demee ba am fitu ñëw dugaar di fi def loo xamante ni naka sudul noonu

et ce sera un combat avec toute la société civile